ëllëg juróom-ñaari fan ci weeru octobre nara nekk finalu basketball féminine coupe Sénégal bi war a dox ci diggante ay Ville de Dakar ak Dakar Université Club ci noonu usmaan Diallo di entraîneur ASC Ville de Dakar daal dinay xam ne ni dinañ indi yeneen doxalin ngir yóbbu ndam li li si am solo mooy ñu xam ne que ne ñii gañe nañ leen ñun ci ren gañe nañ leen ñaari final ñoom gañe nañ ñu benn donc su ñu waree dem dernière final dañuy tiire enseignement ci match ba ñu pertoon la tax ñu perte ak lan la ñu war a liggéey pour ñëw ak beneen taxawaay ku ne mi ngi liggéey nag pour yàlla may ko ndam man donc ba ciy ñaan yàlla may ñu ndam ñu ngi ciy liggéey di corriger erreur yi passé pour améliorer match bi di ñu war a def incha allah. entraîneur ASC Dik itam daal dinay xamle ni pare nañu ngir boobu lay jàmmaarloo. tey yaakaar naa ni boo jógee ci final boo xamante ne jël nga ko. Euh, maanaam ci wàllu mental da nga nekk da ngay da ngay daal di am benn ascendance c'est-à-dire que tey ci wàllum xel am na fu ñu toll voilà donc tey ñun pare nañu te liggéey nañu bu baax ngir mën a jàmmarloo dem jéem a challenger at ville de Dakar parce que xam nañ ni équipe bu mag la te du yomb donc euh, ci kaw loolu ñu ngi ciy gërëm te di wax ni sama joueurs yi pare nañ ci wàllum yëpp vraiment ci fànn yëpp vraiment pour mën a jàmmarloo suba. naam capitaine ASC ville de Dakar ba teewu fa woon waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu capitaine ASC du jàmmaarloo bi du nekk lu yomb waaye nag dinañ def lu ñu mën ngir yóbbu ndam li final bi dañ koy dañ koy waajalee kon ni ñuy waajalee coupe du maire bi bi ñuy ñëw di gagné ville de Dakar bi ñuy ñëw di gagné dañoo engagé woon booloo doon benn dañuy ñëwaat suba def la même chose pour gagné ville de Dakar pour gagné ko yombul mais faaw faaw ñu daw ak ñoom di attaquer di défendre di xeex ak ñoom ba yàlla may ñu li ñu bëgg mooy ndam li incha allah. mu nekk final basketball coupe Sénégal bu jigéen ñi. ñaari équipe yëpp jàngee ci seeni erreur ci match yu mujj yi te fas yéene nag def lépp lu ñu mën ngir yóbbu ndam li.